Euh, sëñ Abdou Khadir dafa am yàlla bi mu bindee euh, suuf si. Hmm. Euh, dafay wàcce comme aay bi nga wax léegi. Hmm. justice. Hmm. bu maandu la fi teg. yàlla bëyul doomu aadama rek pour bàyyi leen. lu waay neex def. ba ci bàyyi ma yi nga xam dañu nekk ci àll bi sax. am na noonu yàlla organiser leen seen biir. am nañ ko jiit am nañ nangam donte amuñu xel donte amuñu nangam am na yoo xam ne jomm nañ ko def ñun bàyyi bàyyi mi jomm nañ ko def ci kaw suuf hmm. rawatina doomu aadama bi nga xam ne moom la yàlla suma subhanahu wa taala def muy xalifatullahi fi ard hmm. mu ko suuf si bi nga ko dondloo suuf si pare yàlla da koo tegal ay yoon ko hmm. ndax yàlla moo xam alaa ya'lamal xalaq xam na lii xew ak kaw loolu ak ni mu bindee doomu aadama ci la ñu tegal ay loi tegal ñu ay règle boo xoolee loi yooyu ak règle yooyu sax daanaka booy xool li ñu mën a tudd léegi euh, démocratie wala boog adduna euh, bees bi moom lañ jël jël mooy seen tribunal yi seen constitution yi du ñëpp daanaka boo demee ci alcorane karim da nga ko ci fekk da fekk ne alxuraan karim ni mu koy ràbbe ak ni mu koy tegee day gën mat waye teewul loolu lépp da nga ko ci fekk motax sun borom subhanahu wa taala bi mu wàccee doomu aadama ci kaw suuf aay bokku na ci aay yi mu leen digal inna la ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kon lii aaya wii bi mu wàccee li muy defar mooy am pénc justice la bëgg injustice jóge fi hmm. li mu bëgg mooy kenn ku ne ñu jox ko àqam ba mët sëkk hmm. loolu da ngay gis ne kon démocratie day daal dugg ni ko mën a tudd tey kon l'islam moo leen jiitu bu yàgg-yàgg hmm. kenn du tooñ kenn teg ay loi teg ay tribunaux l'islam da koy teg dem na ba ci xas maanaam xas nit ki ci wàllu moo xam moo xam wàllu wàllu wàllu monti doon loolu l'islam teg na ay loi teg na ay yoo xam ne da koy teg ah. yoo xam ne dañ nit ki dañ ko war a euh, jaar ko jaaree loolu lépp na ngir bañ li ñu mën a tuddee fawda mooy euh, boo gisee réew yi gasax lépp mm. réew yi gasax tey ci adduna bi yëpp mm. ñu mel ne ne Assane Diouf xam ne dañ leen bàyyi ñuy wax lu leen neex mm. loolu moo ko gasaxloo gis nga guerre yi ngay gis yëpp guerre civile maanaam terrorisme yi ngay dégg yu la ko waral commencé wut am acte ba moo a koy jiitu wax complot bu amee wala wax am wala wax ju ñaaw am loolu mooy déclenché li ñu mën a tuddee guerre ndax nit ki day daal di nit ki koo xas Euh, maanaam tuumaal ko. Hmm. tooñ ko difaame ko def ko lu mën doon. Hmm. kooku bu fekkee ne amul ku ko fayul. Hmm. justice bi nga xam ne teg nañ ko ci ku ko ko. kooku bu amul gisul lu mel noonu mën naa dem fayul boppam. te heure bu fayalee boppam. li ñu mën a tuddee tey nga xam dañ bi teg loi yi teg lépp. bu fekkee ne dem nañ ba ku mel nii ci réew mi. nga xam ne man sax maa ngi ci ay gëstu ndax ñun euh, kaddu ñëw xalatuñ ko diglu xamuñ mooy lan sib nañ ko ndax daana dégg nit ñi wax xedd mel noonu waaye nag bi mu accès ba laal li nga xam moom patrimoine mu laal ko ndax patrimoine wax patrimoine bi dafa boole dëkk bi di tuba premièrement ndax sëriñ tuba dëkkam bi la njëkk sanc hmm. avant muy def lenn ba man wut fu muy jaamu yàlla daa dem ba hmm. ba ba daaru salaam nekkoon dem ba tuba pak boo xam nan fay kenn dëkk fa mu mu toog ci kaddu gam ci suuf kaddu salim jël di nyanyi ñaan yàlla suma ndax subhanahu wa ta'ala moo ne ñaan leen may leen tuba bëgg na gox bu sel bëgg na nit ñu sel bëgg na ñu jamm yalla jamm yalla bu mat sëgg hmm. bu daal di tok fofu jël xasida mat la fasin xool lam ci ñaan lam ñaan di xasida mat la fasin ngir sañce ko dëkk bobu tuba hmm. kon premièrement boy wax patrimoine tuba nga ñëk wax tuba nak am lu mu ëmb hmm. premièrement li mu ëmb mooy xalifa sun xalifa général yi fi nekk ak sun kilifa diine fa nek ndax dëkk kat buñ ko dee wax wala juma wala ñu mënt doom adam ak gëna gën moko ko ëpp valeur moo ëpp xorma yontu sa sa jàkkal na kaaba gi nek dina toj ñu day tabaxat moy toj dina tabaxaat mo gën moy xoti war may ab julit bu gëm yalla suma subhanahu wa taala kon dëkk buñ ko dee wax juma buñ ko dee wax jëmmi doomu aadama moom la ñu a njëkk sàmm hmm. kon suñu kilifa diine yooyu dañoo bokk ci patrimoine muy xalifa général ak képp ku ko jàppale hmm. ba ci porte parole moom ki ko jàpp ndax moom la wax ne ko yaay si yor sama kàddu hmm. al mursal bi xaddiri mursal waaw kay ku ñu yónni dañ lay xoolee dara yi ka la yónni kon ñun ñëpp ci patrimoine bokk boo ñëwaatee jumaa ji bokk ci xasidi sëñ Tuubaa yi bokk ci maanaam boo ñëwaatee màggal Tuubaa gi nga xam ne lu sàkkare la bokkaat ci kon yooyu képp ku leen laal laal nga laal nga képp ku di am murit laal waaye laal képp koo xam ne ñu ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu muhammadur rasulullah hmm. moo tax nag ba mu daan def yooyu di saaga président xam nga loolu président damay wax ne hmm. même président de xam ne moo jiite ñëpp hmm. tey da nga gis alquran karim ni mu fonk kilifa yaa ayyuhal lazina aatii'u llaaha wa aatii'u ulul na président yi ni ñuy jëflanteeg ku yàlla jox jox ndooma tànk suñu tubaab daana ko wax daana wax doomu aadama ñeent lañ ku yàlla màggal ku yàlla teral ku yàlla jey ak ku sëñ Tuubaa ne ku yàlla màggal hmm. mooy mooy awliya lay hmm. a xeex nekk ci hmm. loo xam ne moom wóor na ko nekku ci lu dëgg yow tamit xam nga ne ki nekkul ci dëgg ku dëng la sëñ Tuubaa nee na nga sutura lii rek maanaam déjà justice bu maandu la boo xam ne maanaam képp ku ko dund violence chance du am dara du am kon ñun lu dul ñooñu bi nga ne laal na leen nag wax dëgg yàlla ci la laal lépp moo tax nag bi mu loolu ñu nañ mu wax hmm. kàddu ñaaw yoo xam ne kenn ñi ko yëkkati hmm. ah xamu lu mu mënti doon ak man maa ngi dégg yu bari naan waaw xëy na dafa am nekk ñoo def déedéet hmm. gis na sëñ tubaab damay wax ne tubaab yi ñoo fi nekkoon té lobby bi def ci àdduna bi yëpp bi ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko ñoo kenn wér ñoo ko seere sëriñ Touba tubaab bi la jamar loolu hmm. bobu démocratie amut égalité amut manam radio sax boy boy waxe amut hmm. foy ñaxtoo fooy jooyee amut hmm. ñoom ñoo fi nekkoon di bour di bumbil sëriñ tuba jamar loolu ñom not leen duma leen bi fi tuba Touba jógee Mourou Moussa nekk bi gaay bëgg galan koor sëriñ Mourou Moussa and ak ñoom àndal not tubaab bi duma leen ba ñi muy wax ak ñu sëriñ si Maxtaan Mbakke yàlla fi yàgg ci wér kon ñun kan mo wara mëna mën jaaxal ñu ci ay lobby ak xeet mel na bañ naan Assane Diouf daam ko nekk ginnaaw daam ko nekkam am moo tax nangam hmm. nangam. déedéet damay wax ne li wax naa ko léegi rek sànq di waxtaan mu waxtaan mm. ma ne euh, day u wax ne change jaar ju génn jaar mm. jaar mën daw ci beneen pax daa fay mm. dugg su daa fay dugg waaye teew dina génnaat <laughs> xaw a may change mooy laal le ko dara a màgg ci réew boo ko laalee saaga ko def waate sëñ Tuubaa di ko génne wallaahi booba la ñu waroon njëkk taxaw mm-hmm. jàmmaarloog lu ci mel noonu noonu xëy na ñun duñ hmm. a hmm. kii naan sàngat day lasar lasar sax waru ko saaga l'islam digal lu nga saaga kii kii mooy yàlla moo xam daa nekk hmm. ci tëli ba di mooy yàlla di di yooyu nga xam ne ñuy génn guddi nañ ko def kooku amul droit tooñ ko amul droit tooñ ko da nga koy bàyyi kenn am nekk rawatina nag koo xam ne ma ngay liggéey ak ku man doon ci réew mi kenn ku ne nga yëkkati sa làmmiñ xas ko ko léegi nag loolu boo ko defee euh, dara fekkulu ci mhm. nga ñëw ñëw nag liñ naan euh, wax kat dana wax wax ba bu lamb sax du gis damay damay kii loolu nag jay ko ba mu ñëw nag wax dëgg yàlla dugg foo xam ne nag dëgg yàlla bu nekkoon ko am taw la mhm. bu nekkoon ko yàlla sama sama nar a dimbali fii mu dugg tey du fi dugg ndax mbooleem ku ku di kilifa nekk ci biir yoonu sëñ Tuubaa yi mhm. mbooleem ñu bokk ci maanaam fédération bi ak kilifa yëpp ba ci ñi nga xam duñu ay murit te AIS bi comme ni nga ko di wax na waaw lii Assane Diouf di wax pourquoi ñu mën koo def ñu koy bàyyi ci réew mu mel nii kon nag damay wax ne mm-hmm. justice mooy doxal am réew mm-hmm. gis nga lii Assane Diouf di def. Hmm. ñun bàyyi ko ci. Hmm. baaxul ci am réew. da ko yàq ndax ñun dañuy wax ne président de la bu defut rôle hmm. bu defut la mu war a def pour jël ko jàpp ko ñun war a am moo ko daal. te mi ngi jógee ci mel ne genre yu mel nii. muy muy Assane maanaam wax loo xam ne kenn mënu ko wax kenn ñi ko wax. dugg foo ne kenn ñi ko dugg def loo hmm. loolu am ne ñun ñëpp ko bokk hmm. chrétien baa ngi musulman baa ngi fi ñeneen ñi gëmul dara ji waaye dañoo gis cohabitation bu rafet lañ ànd dund ko hmm. kenn du xas kenn kenn du jóg kenn kenn du asafala euh, wax dëgg fa yàlla loolu lañ xamoon Sénégal muy Sénégal ngor Sénégal jàmm Sénégal lu mel na kon duñ nangu nag benn waay boo xam ne def na lu ko neex ba pare wëlbati ko ñëw nag di wax ci diine xam li gën a yéeme mooy yow xamoo dara ci diine xamoo dara diine xamoo ko hmm. nasaraan ba tamit kasaalika booy dem sax xamajul xamajul leen hmm. nga bëgg ñëw nag wax bëgg wax turu diine hmm. di dugg ci màggal Tuubaa di dugg ci kilifa diine dem na ba ne xalifa général a ci yem ñëpp ci yem ku fi def lu war a def ma ko def mais nan taxaw foofu xalifa général ndax dañ ngeen gis ñuy def naka suñu war def ñun amuñu réew mi damay wax ne ñett ñi nekk muy politiciens yi ak li ma tudd sëriñ si ak imaam yi ñoo fi nekk ndax ñoo jiite réew mi hmm. ñoo hmm. fi nekk ñii ñoo jiite réew mi hmm. loolu nag damay wax ne képp koy cautionné mm-hmm. képp ku nekk ginnaaw Assane Diouf di ko cautionné mm-hmm. ak di di di ko rafet la muy wax ak di ko jey fu mu dugg ëllëg yéen ñaar di ngeen na bu ñu nga jox taan dañ ko incha allah